dend ak soxna Adja Saliou buntam boobu nga xamante ne nii tey lépp lu muy dox rek daf ci ànd ak moom amiram bi nga xamante si ni tey seetaanu ko benn yoon ci lenn loo xam ne nii rek bokk na ci liggéeyu Serigne Béthio bi nga xamante si ni tey euh, mooy li nga xam ne mooy wareef bi Serigne Béthio bàyyee ki nga xamante ne moom moo di soxna Aida da nga werekaan yi ñu ngi noonu di yëkkati la def ñii di dukat dafa naa ni mbégte mi wal na fu ne yaa na fu ne tey ku xool lii xam ne lii mooy dégg dégg dégg jëmam ji dégg dégg Serigne Béthio baa ngi nii kon defe naa ni la ko Serigne Béthio ne woon yaay man maay yow ah baat boobu tey wuy na ko topp na ko ndax kat moo ko jëfe li may waral di wax rek nee naa ko sànq ndeg ba jawoon maam jambaay bu jamul doom rek daa teg yoon cuun dundal lool yàlla na sa fan yu gudd yàlla na nga dund dundal bu baax a baax a baax ñu sax ci di la bégal di la di la di la di di la di la liggéeyal di la taataanal di la tarbi ci lépp loo xam ne rek ndigal la buy jóge ci yow di ñëw ci ñun mbokku taalibe yi di ñëw ci ñun say doom say rak ak say am di jàmb ak képp koo xam ne nii rek yaa ngi bëggee ki nga xamante ne ne moom moo di Serigne Béthio xooleen ma ambiance boobu nga xam ne nii tey moo ngi jóg werekaan yi nañ werekaan yaa ngi noonu werekaan yaa ngi noonu Masamba du karu day yaa tey jël ma sama jël ma ndeysaan waaw waaw sama yaa doondoo ngi noonu toog dafa ñene lii yaana macha allah ayca waaw waaw ndeysaan mbég mi yaa mbeg mi wal na macha allah xoolal suma yaay dondoo mu ngi noonu toog mu bëgg lool soxna Aida bëgg ko lool nekk taalibeem bi di ko bëggee di ko ndamoo di ko tiitaroo di saafante ak moom ci lépp loo xam ne nii rek ndigal la buy jóge ci moom jëm ci kàddu liggéey di wàcc ci kaw taalibe yi kon defe naa ni tey mbégte mi yaana na xoolal ma la nii mbooloo mi jogee taxaw ah kilifa yaa ngi fi képp koo xalaat rek moo ngi fii tey ci bés bi nga xamante ni tey moom moo di euh, bésub korité bi nga xam ne ni tey julli ji amaloon nañ ko fii ci cofeel te soxna su tedd si woote ko Masamba fii nga xamante ni fii laa nekk werekaan yaa ngi noonu gis nga li nga xamante ni tey moom moo am fii ci kër gi lii ku ci teg sa bët xam ne lii moom mooy dëgg-dëgg Serigne Béthio moom mooy dëgg-dëgg jëmam ji sang bu tedd bi nga xam ne ni tey mu ngi ànd ak ñaari buntam yi ànd ak ñaari amiram rek dañ ci ànd ak moom ci liggéey warakaan yaa ngi noonu dégg nga ñuy sabal ki nga xam ne moom moo di soxna Aida Saliou mi nga xam ne ni tay moom mooy dëgg-dëgg jëm Serigne Béthio nga xam ne ni tey kenn dootu ko naataable ayca Serigne Béthio dëkk bi lii nag moom moo am fii ci ci kër gi nga xam ne nii moom moo di këruk cofeel gi nga xam ne ni tey day wane ne rek dëgg-dëgg jëmam ji dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio baa ngi nii jàmbaaru Serigne Béthio baa ngi nii ki nangul Serigne Béthio liggéeyal ko topp ci ndigalam bàyyi ay tereem waaye nak ma samba comme ni ma koy waxee saa su rek olof day faral di wax ni ah ki la jàmmuloo Dakar moo la màcciloo sa juróomi baaraam tey ku fekk si Soxna Aïda Saliou ci kërug cafeel gi di nga kenn du la laaj lan nga fi def ndax li fi am rek mooy jàng alxuraan wàccee kaamil tàggat ndongo yi ci li nga xam ne nii moom moo di njaamu yàlla akub jub mooy siyaar bi nga xam ne nii tey am na fii nii ci Medinatoul Salam Samba ba tey rek gis nga li nga xam ne nii tey waaw waaw gis nga nag ki nga xam ne moom moo di soxna si tedd si noonu mu jugee doom siyaar were kaanam bi mooy wane ne rek mooy dëgg-dëgg jëmmi sëriñ bi ndax xolof day wax naan ndëg ba jawoon maa jëm baay bu jëmul doom rek daa tegg yoon mi nga ànd ak soxna Adja buntam bi nga xam ne nii tey lépp lu mu dugg rekk daf ko see fekk si waaye nag di leen wax ne mbégte mi ñu am mooy ni mbég mi di walwale di yaa li were kaan di wax nekk loo xam ne lu war a dégg la Adja bés bi bés bi waaw xam nga ni koo gis xam ni mooy Serigne Touba waaw koo gis bis bi ah. xam ni bis bi yàññ na moom ndokk bañ sëñ béjjo booleeg moom barke Serigne Touba moo tax ñu bu baax a muy wane dëgg-dëgg jëmam ji saa su ne tey kay Sall Samb wax na ko fi sànq Sall Serigne Sall Mbow wax na ko fi sànq Ibrahima wax na ko bi moo tax tey ku ànd ak kii sagu ku ànd kii ndamu kii mooy Thank you. jëfee ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem ndax Serigne Touba mu tedd moo ne woon loo ma sori sori sori tey jëfee ndigal di bàyyi tere jàppal ni yaay ki ma jege waaye nag loo ma jege jege te doo jëfee ndigal di bàyyi tere jàppal na yaay ki ma sori jëfal cuun jërëjëf yàggal wéral euh, dundal a sang bu tedd baa ngi noonu nag ñu koy siyaar si mbégte maa ngi noonu Masamba mbégte maa ngi noonu lépp ci Midi Actu